bis nga ca jubbanti ga dee ubil les fa yéene kaay ma nee la jubbanti en marche mbir maa ngi dox dëgg premier ministre bi Ousmane Sonko day waaw daal dinay jaajëfal nag gouvernement bi yëpp doore ko nag ci njiitu réew mi Bassirou Diomaye Diakhar mi nga xam ne kon def nañ seen déclaration de patrimoine boobu ca conseil constitutionnel ak ca OFNAC waaw ci délai yi nga xam ne kon maanaam moom la ñu jëlee fonction te moom la buur santaane njiital gouvernement bi a ñoom te war koo def par force waaw waaw premier ministre ba day moom Ousmane Sonko daal di nay xamal na conseil ba waaw ne ci ndigalu njiitu réew mi lé Bassirou Diomaye Diakhar Faye ne danañu taxawal nag ab comité d'examen ngir xool nag wàllum contrat yi nga xam ne kon signé nañ ko day ci secteur yu stratégique ya te gis nga comité yooyee waaw la ko tax a jug day lenn la xool nag ba xam kon mbir mi lé am na njariñ waaw wala déet moom contrat yi waaw tolloole am na ca waa réew mi nañ ci gis seen bopp di international façon mi nga xam ne kon moom lañ war a doxalee contrat yooyee yéene kaa ne boo bëggee dégg dëgg voilà muy ministère yi muy agence yi muy direction yi muy institution territoriale yi lée genre mairie yeeg yooyu waaw 1960 ba léegi ni lée lenn rek liñ fi gis de te dëgg dëgg uute na ak lii ab yorin woo xam ni stratégique des actions publiques waaw ñi fi ñëw ñëpp dara te lii mandarga loolee mooy xoola corps de contrôle état bi dañuy def ba pare furaas mbir mi du mujj fenn ay audité nañ ñoom diw ak def nañ lii ak lee ak dara fenn la dul mujj dama ne la ñaata projet wala ay programme waaw la ñu fi tabax togg ko lalu ñu ko sax ci catal stratégie lan mooy risque ya dara duñ ko ca def yéene kaa gi ne waaye na gis nga application assise de la justice googee waaw Bassirou Diomaye Diakhar Faye day il maintient la cap barke Rasoulaay yorin koo xam ne day ndànk rek Diomaye ma joomaay ma parce que président de la république day waaw daal di nay sàkku nag ci premier ministre bi lée Ousmane Sonko ak ci ministre de la justice bi lée Ousmane Diagne ak ministre yi ñu concerné ñu daal taxawal nag benn calendrier de mise en œuvre la indi ay réforme ah ci wàllum justice gi dëgg la waaye législatif du gouvernement le président Bassirou Diomaye Diakhar Faye day ma ne ni kii waaw la fi def téeméeri fan président Amérique ba di Roosevelt avril deux mille vingt quatre dix juillet deux mille vingt quatre waaye yow kaay leen ñu dooree ko nag ci lu jëm kon ci wàllum diplomatie ak sociale ah waaw Bassirou Diomaye Diakhar Faye mi ah lu tolloo fukki réew ak benn day war na ko France ci ñetti weer dem ca soixante cinquième sommet wu dama ne la président Tinubu mi nga xam ni kon moo jiite nag kuréelu Afrique googu CEDEAO moo xool Bassirou Diomaye Diakhar Faye ne ko doxal suñu diggante ak waa AES soldats yi nga xam ne defar nañ seen yëfu bopp loolee nag li muy mandargaal mooy gëm na capacité wu Jaxeer Fay ci dialogue ak diplomatie waaw waaye tamit Sénégal fi mu toll ci Afrique gi la ak état CEDEAO oh, dëgg la ci lu jëm nag ci wàllum diaspora ci téeméeru fanu Bassirou Diomaye Diakhar Faye day lu tolloog juróom ñetti junni ci ay passeport mobilisé nañ ko ca biir Europe huit mission d'établissement de passeport ca Portugal Russie Koweït Émirats arabes unis Cameroun Brésil ak Argentine kii di ma ne ku ma def lii ci wàllum social day ñeen fukki milliards ak benn waaw dajale nañ ko remboursé ko kon béykat ya dix milliards fay nañ baru hôpital ya semi waaw ku fi ma def lii juróomi weeru arrière ay bourse day ñu fay ko ku sa def lii dund gu seer gi lée ñu jël juróom fukk ak ñett ci ay milliards def ko ca wàññi ceeb ba ku mën lii wàññi diw ba ku mën lii wàññi mburu ma ku mën lii wàññi suukar sa ku lii wàññi impôt ba ca ciment ba ku mën lii yombal dëkkuwaay waa ku mën lii yéene kaa gi ne kaay leen nag ci wàllum yorin ngoo xam ni ko mucc ayib la bonne gouvernance Macky Sall day ay auditam conco la ca tegoon waaw Bassirou Diomaye Diakhar Faye dikk indi reddition des comptes lancé audit ya dama la assise de la justice yi xanaa da nga ko fàtte moom jiitu réew mi sàkku na ci premier ministre bi la ni ki démb ne de la magistrature même ñi nekkul ay magistrat jëlal seen xalaat lancé audit ya ca ministère yeeg direction ya ngir sakkanal kon wàllum alalu askan wi lée lii dama la président day dakkal ñaar fukki junni soixante-dix mille terrain ca Mbour 4 ca Thiès ku mën lii dikk ci wàllu mbéy mi lé ci téeméeri fanu ba Bassirou Diomaye Diakhar Faye yoor yoor yéene kaay ne lu tolloo téeméer ak ñaar fukki ci ay milliards ñu daal di koy dugal nag ci mbéyub ren bi campagne bi waaw waaw ku mën lii fanweeri junni ak juróom ci ay tonne phosphate dañ kaa may béykat ya gratuitement njëgal engrais bi lée jëlee nañ ko ci soixante pour cent yóbbu ca vingt-deux pour cent waaw ku mën lii wàllum jiwu gi lée nañ ko ca pour cent ku mën lii coopérative agricole pour la diaspora ñu taxawal ko ku mën lii yéeni kaa gi ne demal ca wàllu napp ga docteur Fatou Diouf waaw ministère pêche napp gi daal dinay publier day bato yu war a daw ak yu warul daw fii ci Sénégal ci suñu géej gi ba pare nag jox ultimatum bépp bato boo xam ni kon waroo fee daw lu jëm nag ca wàllum pastoral ba day jur gi daanaka million laa la wax ci ay xar neuf cent cinquante cinq mille cent soixante quinze mouton lañ indi ci tabaski bi maanaam lañ soxla woon di huit cent cinquante quatre mille trois cent vingt six teg nañ ca cent mille huit cent quarante neuf ñaf dikk leen ci wàllum transport bi de ak éducation ana lu fi Bassirou Diomaye Diakhar Faye def téeméeri fan yi la yëral Sénégal bi ndekete dalloo na lu tolloog juróomi avion aw L410 NG république tchèque la jógee waaw taxawal fi tamit ab centre de maintenance aéronautique ñëw ñu ciy formé kon ay pilote ay dawalkatu avion taxawal usine assemblage d' fii ci Dakar Njaajal Jóob waaw organiser aji makkat yi ana bas jam rek ca minam ñu ne dem nañ ci jàmm ñëw ci jàmm wàllum transport boobu ba léegi ni lée ministre Alaaji Malick lu tolloo téeméer ak juróom-benn fukk ci ay bus day la mobiliser ci tabaski bi yokk paas moom jeex na fi ñëw wàllu njàng mee njàngale mi lée ak formation professionnelle ni lée d' information intégrée waaw ay candidat wu CFEE certificat BFM baccalauréat yoo xam ne dañoo amoon problème mu kayitu juddu de état civil ñu régulariser leen waaw ku mën lii ay waay dem leen ca énergie urbanisme solidarité yéen ngeen ne premier barigo pétrole ba day génn na ku mën lii réactiver waat interconnexion électrique bu OMVG jëlee ko san vingt yóbbu cent cinquante mégawatts ku mën lii ay waay ñëw leen ci assainissement beeg hydraulique ana lu fi bas def ci téeméeri fan yi la yor yor yéene kaa ne ak urbanisme organiser waat nañ cent mille logements yéen doon wax ca tàgg xol ba waaw ñu génnee ñetti milliards pour la prise en charge gratuite des dialysés ñi nga xam ne ñoom ñoo yor feebaru dialyse lu jëm ci wàllum assainissement seetal suñu réew ba sa ko fi indi ci wàllum ndox bi lee tund yi nekk ca kaw ga waaw waaye bëri na ci ay forage yoo xam ne dañoo paanoon defar nañ leen bokk na ca bu Tuuba kon Bassirou Diomaye Diakhar Faye day ak premier ministre bi lee Ousmane ña nga ca projet ba leen ne Macky Sall day téeméeri fanam dëgg la wàññi na fi dund de dindi fi cinquante neuf agence organiser fi ñaari conseil ministre de décentralisé tey lii Serigne Salif Gueye day moo jaar ci 100 jours yu Diomaye Sonko Sonko Diomaye Diomaye mooy Sonko crise yi yéene kay ne fast track ba day ci yori nuk les affaires de l'État gouvernement bi day ci pression bu miti la nekk laa la wax parce que bu dee président Bassirou Diomaye Diakhar Faye waaw ma ngay gaawal jéego yi day ngir temps bi nga xam ne kon dañ ko perte ñu daal di koy gaaw dabu waaw pression baa ngi mel ni tulleeg male ci lot bi ci boppam teggi wuñ leen ci département yi stratégique yi gars yi dee luñ ko de tribune yéene kaay ne la feeñ démb ca conseil des ministres ba day mooy mandargaal ne président Bassirou Diomaye Diakhar Faye mi le waaw mi ngi wut ab tailleur moom tamit de ma ngay wutub Madior Fall de ma ngay wut ab tailleur bu ko dakkal kon constitution bi maar day taali waaw waaw bés fi la journée premier ministre bi day ah daal dinay sàkku nag fi mu nekk ni le na ministre yëpp daal di def kon seen bilan ci cent Ousmane Sonko day li mu bëgg leen dong la de mooy ministre am yi lée di kon yëngu waaye na ci nomination yi audit yi budget ak création yu bees yi lée mbir mi yéex na de mbir mi yéex na de la coalition Diomaye président day ña nga nag ngir défendre kon seen cent jours yi réew mi quotidien ne yorinuk budget bi lée di dem nii budget bi waaw weer wu njëkk wi day junni ak juróom-ñeenti téeméer ci ay milliards la Bassirou Diomaye Diakhar Faye consommé gum aha waaw waaw sur quotidien ne mooy wutal xale yi liggéey des jeunes waaye nguur yi nga xam xam ne ñoom ñoo fi jot a gaar yëpp lii daal moo leen tere nelaw laa la wax lu tolloo ñetti téeméeri junni ci ay ndaw trois cent mille jeunes ñooy dikk ci marché du travail bi la wax at bu allahu akbar Ablaye Wade ak ay agence sam Macky Sall ak yoonu moo taxit loo ci gis ñëppay ambulance sur sa aane ambulance yooyee mbëkkante gu tar démb Sandaga maa la wax diggante marchand ambulant yi day ak agent municipaux yu Dakar Plateau Kër Massar tamit day ña laa la kon mutinerie ci nguuru Serigne Ngundu Aline Mbaye day marchand ambulant la nee seet lu gi daal mooy suñuy marchandise waa mairie bi lee duñ koy toppatoo de bu réerulee kay buñ la joxaatee sa marchandise doo ko soxla laa la wax waaye sous préfet bu Dakar Plateau Jibi Diallo ah daal dinay woote nag ab réunion tey daar daar waaye nee na fam nekkoon du fa jóge de marchand ambulant yi moom boo bëggee dégg dëgg danañ leen dëgër piir danañ leen fa jëre yéene kaay daaw da càmbi ne xam ne sandakaan doon tàkk waaw jafal bàyyi gi mel ni tulleeg male ambulant yi nekk Ousmane Sonko ak lam leen digoon ca élection ya te nee na ña ngay préparé wu de ngir wane seenu naqar ñoom marchand ambulant yu Kër Massar yéene kaa gi ne tardé gi nga xam ne nag seetlu nañ ko ci liggéey yi liggéey yi ñu def ci wàllum assainissement ci gox yu bëri ci Sénégal ñi nga xam ne kon ñoo waral tardement boobee liste ba génn la liste les coupables waaw tribune yéene kaa ne wàllum inondation yooyee waaw mais lu tollu junni ci ay milliards te mbir mi mujjul fenn ndox maa ngi nii évidence yéene kaa ne xoolal ASER agence bi ñu dénk koon wàllum courant bi ci kaw gi électrification rurale waaw diggante 2012 ba 2022 10 ans loo ëpp ñetti téeméer ak juróom-benn fukk ak ñetti ci ay milliards lañ caxa-caxatee laa la wax allahu akbar 763 milliards Jean Michel Sène di directeur général bu bees bi ci yor yor yéeni kaay nee na 4 ñeenti millions ci ay sénégalais yoo xam ne day ci lëndëm la ñuy dund de nii ñuy wax ni amuñu courant allahu akbar direct news eh. waa Ousmane Sonko moom ana ay alliés ak ay ministre am que Ousmane waaw opposition bi day fu ne lañ koy attaqué song ko yi feeñ génneel ko ay vaar bugaan ngay dani toll ni lée Abdou Mbow nekk nee Zahra Iyane Thiam nekk nee Thierno Bocoum Mamadou Ibra Kane Yoro Dia ñii ñooy opposants yi gën a tar ministre des finances am rawatina war a génne expliqué yu bëree bëri ne pat Birame Souleye Diop Moustapha Guirassy Alaaji Malick Ndiaye Khady Diène Gaye gars yi ne pat laa la wax yéene kaa gi ne bul fàtte Abdourahmane Diouf moom it ne pat évidence yéene kaa loxoom de waa ji mbaadu daa am agenda caché jël ay nitam tamit teg clientélisme politique libération yéene kaay de bébé huit bi nga xam ne ña ngi ko fekk nag ca bassin daaru min na mbax mu dee enquête bi li mu a doy na waar yaayam ji am 18 ans moo ko fàtte woon ca booru bassin ba tiitaange jàpp allo mujj nañ koo teg loxo de dem naa ca football ba libération yéene kaay de fédération sénégalaise de football am bi day ak assemblée générale am bii mu convoqué te jaarul yoon waaw mais gi njaboote président club de football amateur yi day day nee nañ ko nañu annulé âge bi laa la wax coppite yi ñu ca ñoomin see football baa nga Europe yëral stade yéen i kaay nañu euro 2024 bi day Espagne ay Lamine Yamal Lamine Yamal le demi-dieu du football Lamine Yamal day football rek lay def <laughs> waaye lu mu mën a football football football football football football day bu leen fàtte ne suul gaz du ko tere xeeñ dawi taxulaa rëcc parce que Sonko jomaay te jomaay mooy Sonko boo paree ma ne la alaaji